kii comme ni ñu koy faral di defee rek saa su ne yu mag ak yaakaar naa ak Click Dakar 221 waaye tey nag ñu ngi fii ci cité Mbackiyou Faye bu ñëwee cité Mbackiyou fay nag xale yëpp dañuy dem ci ah ki nga xam ne tey mooy ku macha allah muy ajaratu ngoy faal bu ñëwee ajaratu ngoy faal nag xale yëpp dem ci borom or yi borom masque jamaa yi borom masque or yi macha allah man maa ko tuddee borom or borom masque jamaa parce que yaakaar naa ku gis lii muy teraange muy def muy gàmm bi muy def. yaakaar naa gis ngeen bi jógee Touba yàggul dara ah mu nekk taaliba Serigne Touba nag nekk soppe Serigne Saliou waaye muy def benn gàmm boo xam ne c'est annuel la koy def fii ci cité Mbackiyou fay tey nag mu tombe ak samedi le 29 gis ngeen teraanga yi macha allah waaye nag da cee ànd ak ñi nga xam ne ah lu ñu defarul baaxul berne ñu deful baaxul mu dibiteri Uba dibiteri Uba yaakaar naa ñëpp xam nañ ko ci Sénégal macha allah du ma nekk naan kii xam na ko wala kii xam na ko képp ku yeewoo Sénégal rek xam nga dibiteri Uba moom la àndal ci bernde yi macha allah bernde yii waaye gis nañ tuuti rek gis ngeen ñi nga xam ne tey mooy yi ñu ngi dugg si nànk-nànk kon rek sama caméra da topp ma xool li nga xam ne mooy euh, macha allah bernde ak dibiteri Uba ñu ngi noonu gis nga macha allah xoolal xale yaa ngi nii gis nga macha allah bernde yoo xam ne amul fenn yaakaar na ak dibiteri Uba kon may wax Sénégal mu ngi noonu macha allah képp koo xam ne rek da nga bëgg lu baax miss yu baax yàpp yu baax ah da ngay ñëw fi nga xam ne mooy dibitëri Uba nga commandé ah gis nga loo bëgg ñu defal la ko tey nag Ngoye Fall lañ àndal fii ci gàmmo bi fii ci cité bi tey yaakaar naa kenn du ko ne guleet ci cité bi saa su ne ni lay demee kon nag sama caméra nag mooy topp rek ma dox ak yow tuuti wan leen li nga xam ne moo fi am tey macha allah fii ci dibitëri eh, Uba nag yaakaar naa gis ngeen li nga xam ne mooy teraanga ji lépp a fi am lépp loo xam ne rek ay lekk la rek am na fi tey waaye nag ajaratu ngoy faal nga xam ne macha allah ku bëgg Serigne Saliou kuy sagoo Serigne Saliou waaye tam muy bés Seydina Mouhamed di gàmmo yaakaar naa bi mu jàllee moo tagul sax une semaine mu woote waat gàmmo bii woote waat la ñuy wax parce que chaque année mu def ko kon ajaratu ngoy faal borom or yi bu ñuy ajaratu ngoy faal rek ñëpp dem ci xel yëpp dem ci borom or yi waaye nag macha allah duñ ko ne guleet fii bi àdduna yëpp xam nañ kan mooy ajaratu ngoy yaakaar naa ci teraanga ci baax ci bëgg nit bëgg macha allah lu baax bañ ko bañ ne buñ ne ajaratu ngoy fal dañ naan borom or yi amu fi dendandoo ci loolu macha allah kon nag muy def lu mel nii ah woo ci Click Dakar 221 Samba mu ngi noonu macha allah nga moo tax ma sajal ko li ma sanc tey def lii rek ci ajaratu ngoy fal mooy loolu macha allah parce que fii ku fi ñëw macha allah daa am noo mel parce que borom bés benn mel macha allah waaye nag li ma wax toujours rek ànd ceeg dibiteri Uba. yaakaar naa lépp loo xam ne monsieur la yàpp yu baax la nga bëgg ko ci àdduna foo ma di nekk boo amee programme bu lu mu rëy rëy wooteel li nga xam ne mooy dibitëri Uba ah signé ak ñoom macha allah li nga xam ne mooy contrat ñu def li nga bëgg incha allah ci kattan yàlla lépp loo xam ne yàpp la muy yàpp bu nooy pour nan say li nga xam ne say invité la ah boo laajtee dibitëri Uba ngay woote incha allah ànd ceeg nag su ma jigéen su ma xarit koo xam ne kenn la ci man muy Awa Uba képp xam nañ ko yaakaar naa muy secrétaire Uba macha allah liggéey lu nekk ci réew mi damay doxantu ñëw fële xoolal xar yi dofu topp ma moom la xar yi tey se spécial fii ak Ngoy Fall ajaratu Ngoy Fall bu ñu ajaratu Ngoy su ma grand yi noonu kooku moom ma jàngal lépp macha allah su ma ko gisee macha allah man damay dellu nekk xale waaye tey yaakaar naa boo ma toppee tey fi may wax rek lépp loo xam ne lu baax la Sénégal yàpp bu ñor macha allah mus yoo xam ne amul fenn loo koy lekk doo toog doo taxaw da nekk ci kaw air bi non commandel débuté di suma grand frère suma papa suma lépp waaye ànd ceeg kan nag ki nga xam ne tey mooy sama jigéen awa uba topp ma ma xool xoolal affaire yi sàmm jëlal ma lii xoolal ma xar yi mais li gën a garaaw xar yi fi dañ ko macha allah silvissé set wicc mais xoolal ma lii jëlal ma xar yi jëlal ma xar yi ma mus xoolal bii ak yii bokkul xoolal ma ci kaw jëlal ma ci kaw cum mu ngi nii ànd ceeg nag dibiteri uba mu ngi noonu ah, fii ci gàmmo Euh, soxna Ngoy Fall borom oor mu ngi noonu macha allah ki nga xam ne Serigne Touba ko ñor nga xam ne tey ah soppee Serigne Saliou la mu ngi noonu saa su ne deme gis nga. kaa ngi noonu muy Asia nga xam ne tey ah Ajaratu Ngoy Fall lu tey ah kii moo tax tey tey dañ ñaan borom kër bu mën a dara ah soxna saa tax waaye itam ah mu ngi noonu ndeysaan suñu papa wallaay suñu papa dëgg ndeysaan ku bëgg si ndeysaan gaay bi arsaan ku dem sëgg yéri takko caam ay méri takko caam non ba wax loolu dama ni surtout dun baaba digg xëri njaay alsaan ku sëgg yéri takko caam ay méri takko caam man bas bari bagage ma wax loolu loolu am bari bagage mais caay bi bas jaar naa la foofu ñu jaar waajal naa waaw macha allah ak sa nabu waaw waaw waaw avancé leen tuuti caméraman rek waaw nañ gide rek waaw nank rek waaw waaw arrêté leen nank rek nank rek ngeen di xaw nank rek jëli eh, naka la nice waaw ah. voilà yéen far yéen a bokk li ngeen def nank rek amu problème ñëw leen arrêté leen tuuti ndeysaan waaw waaw eh waaw mu ngi noonu de wallaahi wallaahi dëgg la. man acteur Khadim Cissé Gaynde président ma koy wax. monsieur le ministre Asia Touré. ku bëgg président Macky Sall jaar yoon la. ndeysaan ku bëgg président Macky Sall ku jàppale président Macky Sall. Asia Touré mu ngi noonu ndeysaan. arrêté leen waaw macha allah avancé leen carrément waaw. gaynde mu ngi noonu suñu papa Asia Touré gaynde président mu ngi noonu Asia Touré macha mu ngi noonu. waaw ndeysaan am na solo. waaye itam ñu may mbokki boppam yi ñu ñu ngi su sunu bàyyi El Hadj Abdoulaye Mbaye Peex waaye noonu nii la ñuy séenee sunuy bàyyi yu am solo lool jóge ba Touba ñëw fi ngir jagal bis bi kon yéen ñi nga xam ne yéen a wuy si na toogaay yi jekk te rafet na toogaay yi jekk te rafet ñu door mbir mi jërë jëf yéen cameraman yi presse bi am ngeen solo li ngeen bokkul du baax seen taxawaay rafet na waaw alaaji Ablaye na ñëpp toog nañu toog nañu toog def ngeen toog ñu door jotaay bi nañu toog nañu toog